mbokk jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi ak imaam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Alioune Cissé am na xibaar bu mu mbokk jullit rawatina mbokk taalibe yi ñu booloo déglu ko bismillah alhamdulillah alladi bi nicmatihi tatimu saalihat salawaatuhu wa taslimaatuhu ala sayidina muhammadin madadil kainat xaatimi risalat wa ala alihi saxaabatihi alqaadati alhudaati athiqat wa ala taabiin wa taabiihim bi ixsaanin fi jamici tatawurat radiallahu an cheikhina wa mumiddina abil abbas cheikh ahmad ibn muhammadin tijaani an xalifatihi wa waarisi sirrihi wa jahrihi mawlana abi isxaq cheikh ibrahim ibn alhaaji abdillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñuy déglu yëpp ak ñi seetaan maa ngi leen di nuyu nuyu bu sell di leen jotal rek ay kàddu yoo xam ne ci xalifa bi la jógee ci Medina Baye muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass gannaaw boo xamee ne ministre Serigne Mbaye Thiam ñëw na fi ànd ak gouverneur président ni leen fi ñoo waxtaan ak ñun ci réew mi ak fi mu toll ak ragal bi ñu ragal yenn dajaloo yi te ñun ñëpp ay julli lañ ñun ñëpp ay niti diine lañ ñun ñëpp fonk diine waaye diine itam dafa am nu mu tëralee su demee ba nit ñi war a loru su boobaa am na ay oyofal yoo xam ne yàlla daganalal na ko jullit ñi pour ñu def ko te yonent bi wax nañu ko moo tax xalifa bi wax ma ne naa jotal kàddu yooyu pour ajjuma ji suñ no dee itam nit ñi nañ julli ci seen néeg yi su ko defee jaxasoo bi nga xam ne moom la ñuy ragal ak wàllante bi yàlla mën na cee musal mboolem ñuy julli si ajjuma loolu nag nee na du lor diine ji te du ko wàññi te du ko dellu gannaaw diggante la rek boo xam ne ngant moo ko waral comme ngant moo ko waral danañ def loolu ba ngant li yëkkatiku ñu delluwaat ci normal bi jàng naa ci xadis mu wéral ne su fekkee dem na ba nga xam ne sedd dafa mën nit ñi wala taw dafa mën nit ñi ba mënuñoo dem ci jumaa ji sax su boobaa mën nañoo des ci seen néegi julli tusubaar te du yàq ci seen ajuma dara jamono Abdullah ibnu Abbas lu mel ne nu feeñ na ci jamono Abdullah ibnu Omar feeñ na boobu itam lu mel nii la maanaam mbas moo xam ne dafay wàllante ñu ragal mu lor li ëpp ci saxaaba yi ñu mujj wax ne bu ñuy wax yàlla salaa nañu wax ne sallu fi rihaalikum wala sallu fi buyutikum julli leen seen gawar yi fa ngeen nekk ak ñoom wala ngeen julli ci seen biir néeg yi te comme loolu yëpp nag amoon na ci li passé kon masala bi dagan na mën nañoo jullee ci néeg yi su bisi ajuma ngir musal xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musal ñi nga xam ne itam dara laalagu leen ñu ngi ñaan yàlla nag mbas la moo xam ne yàlla moo ko indil boppam moom rek moo ko mën a yëkkati itam ñu ngi koy ñaan moom mi koy indi yàlla na ko yëkkati dëgg la président yi réew mi président Macky Sall mu ngi ciy góorgóorlu bu baax moo borom xam-xam yi nga xam ne ñoo xam dara ci mbir mi ndax mbir la moo xam ne yàlla rek moo xam lan la ba jeex takk ñu ci des ñëpp seen xam-xam am na fu mu ci am comme yàlla rek moo xam lan la te boo ko wàccee yàlla na ñu koy këtil yàlla na yàlla musal jullit nii yàlla na yàlla musal réew mi yëpp yàlla na yàlla musal Afrique yëpp yàlla yàlla musal àddina bi lépp ndax su fekkee ne dafa continuer ci nii mu mel nii baaxut ci kenn baaxut ci ñi am baaxut ci ñi ñàkk baaxut ci ñi toog baaxut ci ñi dox ndax lii ñuy wax jégg mbaam toog jigu ko mooy ko xam ne li muy am dafay dem doxi rek indi ko su toogee benn place rek mooy ne àddina am lëndëm na kon nag ci kaw loolu kàddu yooyu lañ leen bëggoon a dégtal pour gannaaw suba ci ajuma ji bu ngeen déggee ñu noddu itam ku nekk na julli negam waaw ngir mucc nga musalal ñi ci des naa ji yaaxus bi di ax yi ku mucc da ngaa war a fexe ba sa mbokk mucc yoon wi koy musal nag da nga koy wax su ko toppee musal na boppam su ko topp yow def nga sa warugar na ñu yàlla dimbale bañ topp li nga xam ne moom la ñu war a topp woon gannaaw li nga xam ne itam moom lañu war a woon gannaaw ñu ngi ñaanal xalifa bi itam yàlla na ko fi yàlla yàggal na ko yàlla may wér te yàggal ko fi bu baax a baax yombalal ko lépp loo xam ne mu ngi ko bugg wala mu ngi ko bugg a doxal ay sembam yëpp yàlla mottali ko ci loxoom ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci barke Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci barke Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek kàddu yi nga xam ne moom lañ waxoon te waxoon nañ keroog aju ma ne su leeree ci ñun ne julli gi dafay indi benn fitna rek su boobaa wëttu bakkani nit ñi daf ñuy war ñu bañ a julli ji moo tax loolu lañuy ñuy digle fi mu nekk nii bis bële ajuma jële passé biñ koy xamat dafa tardé waaye nag bii yoon comme yëf yaa ngi yokk waxtu wu nekk te kenn xamut fu mu jógee kon nañ def rek li nga xam ne yonent bi yombalal nañu ko ay saxaabaam itam yombal nañ ko te saxaaba yonentu bi bi wax na ne ay biddiw lañ ko ci roy rek jub nga ñun nag ñu ngi roy yonentu bi di roy ñooñu nga xam ne ñoom la fi bàyyi di roy itam borom xam-xam yi ci xeet wi yàlla ñu yàlla wattul boppam yàlla ñu yàlla dimbaleel boppam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kaddu yooyu moo jóge ci imaamul akbar imam cheikh tidiane seydi aliou cissé mu jëlee ko ci xalifatu saahibil fayda mawlaay cheikh ma tidiane cheikh ibrahima niass kilifa nag digle la am taalibe mooy jëfee